ñu def ci ay jéego dox ci wax ci bind ci plainte ci procureur bind lettre président de la république bind lettre ministre intérieur ak mbooleem fu nu war a jaar ci wàllu gu mel noonu ñu jaar fa waaye ñoom ñëpp ñu tëddi nelaw site bi nekk na fi di dox di dox di dox ba mu neex borom mu xëy ne arrêté na liggéeyam ndax dafa bëggoon a yar nee naay xale yu jigéen ñi pour ñu bàyyi lañuy def loolu mbokk yi danañ ci dugg pourquoi Sénégal mbon gi ñi jiite télé ne mënuñu ci dara ba dangay ngay porter plainte ñu dem lu bon lu yées nga dem ci table procureur teg fa plainte mu xëy na la sans duñ ko topp bu yàggu ci mujj collectif bi def plainte ci benn théâtre boo xam ne ay jigéen a ci nekk di fóonante muy mbirum lesbienne ñun ñii ñu ànd dem ba ci table procureur ñu teg fa plainte ñu noppi ñu ne ñu 108 ay jigéen ñuy fóonante duñ ci wax allahu akbar ànd sàmm jikko yi ci seen liggéey boobu bi ñu doxalee jóge nañ ci loolu am na yeneen yu fi jaar waaye yu ci bari yàlla def na ci suutura am na ko fi jëloon ay jamono ay tablo daar futti ci ay jigéen bañu ñu set diw leen ban exposé ko di jigéenu sénégalaise ànd sàmm jikko ñoo taxaw jëmmarloog moom ba dakk ba ko defee bu yoon bu njëkk amaatul amoon na fi keneen ku def ne lii ngaa ko belene def ci clip moom it ay jigéen la jëloon futti leen waaye ñun dañoo jug wax ak moom ci suuf moom moo bindal boppam sàkku ne benn télé bu mu tegati kilibam boo ba léegi ñu ngi topp di ko xaar bu delluwaatee rek mu ñu dellu wa in taudu naud ba ñu jógee ko ci loolu yéen ñëpp déggoon ngeen fi coowal franc ñu toog rek ñu ne franc-maçon àdduna bi Sénégal lañ bëgg a def mu nekk seen capitale Dakar muy récemment kuréel sii ñoo dajaloowaat tëggaat mbooloo mi def ko collectif noo à la franc-maçonnerie et à l'homosexualité ñoo taxaw ne leen wuub ñu daw ndax ay buqat lañu dama ne gaañi ay buqat lañu ay sàcc lañ guddi lañuy dox bu leen kenn ragal bu leen kenn tiit chirzima xalila mën nañ ko tuddee noonu ñoo taxaw ne leen du senegaal gii waaye nag mbooloo mi lañuy gis waaye cey ñi nekk ci ginnaaw mbooloo mi cey ñi nekk ci ginnaaw mbooloo mi ñoo ëpp fuuf ñii ci kanam tey mboolem luy këru tariixa mbooleem luy association ñëpp kenn desul teew nañ fi te ñii ñëpp ñenn lañ échantillon lañu ci ñi nekk ci ginnaaw collectif non à la franc-maçonnerie wala ànd sàmm jikko yi ñooñu ñoo dajaloo ne leen du fii ñu génn réew mi abal ñu dem seen toog ci seen bureau yi di ñu saaga mais nag ñun ay saaga duñu takk ay mbooloo mu ndaw mu tekkiwul dara ñoo ne Sénégal dañuy empêché ñun franc-maçon yi pour ñu def fa sunu daj mais ñu ne leen ca àll kutiya <laughs> mais du Sénégal mbokk yi loolu mooy wéy ci tënk ndax 11h la war a jox professeur Cheikh mar collectif bi di dox di dox ay jéego noppaluwunu gis nga ñii ngay gis dañuy bàyyi seeni lal. bàyyi seeni yitte làmb seeni poos amuñu paas amuñu dépense seen nelaw du doy ñuy wër di dugg réew mi ngir lan li nga xam ne mooy njëglaayul senegaal muy mbaax te aw nit taxaw ne na fi jug ñu taxaw ne leen du fi jug amuñu nag benn moyen waaye am nañu laa ilaha illallah muhammadun rasulullah takbir takbir takbir mbokk yi li ñu am ak rëy bu ñu ko xeeb kon collectif bi ñu ngi leen di dalal di leen sant di leen gërëm ci seen yitte yi ngeen bàyyi ñëw ci journée bii nga xam ne ñu ngi ko tuddee journée xeex bon bi